ndewoy ndewoy ndewoy seymane ndewoy alay katim kam ya lebe ngi lay fay maa yaa ci jàmm sant yàlla bu baax baax tey journée bi diggante si dafa baasoo ban journée la lay fàttali say jamono ah non sama jamono ah, ah, ah. sport mom, sport rek jamono benn la c'est que nag lamb ji moom ñi ñaanal booy mooy ñu bëri ko ci discipline rek jaar ko ci discipline mooy mu am solo donc sa ñaari xale yi tey seen dugg si waaw ah, ñaari xale yi mag ak rakk la Papa Sow moo mag waaye màggetul Siteu xale la boo xam ni dafa dafa dafa gravir échelon yi catégorie par catégorie uh-huh. ba egsi fi mu kon ñoom ñaar li ñuy def mooy li ñuy war mooy ñu bëri ko ci jàmm oui. Ndaamali la mooy avantage am si njool bi. comment. Ndaamali lan la war a mën a euh, utiliser pour am ndam ci kaw njool bi. c'est que Ndaamali moo pas assise mu mu gën a taxaw. boo xoolee rotation mooy ci bi nga xam ne dafa stabilisé léegi dina encore loxo bi dafa diis il a des coups fatals moo def mooy combattre rapprochage oui. lamb ji mën na yéex wala wala mën na gaaw. non non non yaakaaruma ko non non yaakaaruma ko yaakaaruma ko yaakaaruma ko laa wala dóor mu daanu ah, dóor mu daanu toujours mën naa ne accidentellement lay amee pour ku asaar mooy indi mooy mu daanu. 回那就 suñ borom jaraloon ko lu ne bakkanam ndax Siteu yàlla def suñ borom def mu génn àdduna loxoom jotul woon ginnaawam te yaayam rek la bëggoon benn objectif la amoon ci àdduna mooy tabaxale yaayam kër ñun dégg nañ lu ne dañuy bàyyi suñ liggéey sax di topp Siteu mais jaral nañu ko lii lañ bëggoon yaa ngi may dégg mais Siteu nawet day jot mu déployer xaalisam Siteu amul sax compte bancaire ma suul sama nday day dox social normal tabaxal yaay de kër de goma de samay morom ñuy sama koñ ñu bari seen loxo jorul seen ginaaw te fa am loo wax dañoon sama xol ko fi la koy fi fi b tv seen lamb TV wa man ak yeen ba januar xam nga xam nga joxen ma micro ma aju ma def ci code li la doon xaar. lutax lutax dama dama nga doon xaar. parce que damaa damaa damaa damaa nekk ak waajur bu jigen yalla nako fi yalla baye mu ñaanal si te ñaanu xol manam lamb ji dañoo sonnon amuñu sa ay moyens. barke alxuraani karim ñu ngi sant grand Aziz Gueye Gora Diop ñu ngi koy sant. di mais jël bi jël bi maanaam Siteu ñu bëri dañoo yaakaar ni mënul bëre ñun ñu ko seetaan mbapat à bas âge xam nañ li mën a bëre Siteu waneegul bëreem dañ ko jox mbër. kan mooy mbër Papa Sow mag la Siteu ay moroom a fi. léegi bu jógee fii fan ngeen jëm. buñ jógee fii ah fuñ jëm. fi mu ne day xaar Gris Bordeaux ak Ama Baldé. non maanaam yéen tey am na loo xam gis ngeen ko preuve la. am na ci ci ñoom ñu ma dëkk micro ñu ne la da ngeen numéro de lañ soxla. alhamdulilah alamin am na loo xam preuve la. stade Pikine bi cat ba cat ci xale boo xam 89 la juddu loolu yombul si te nañ ko jox ay moromam am na lu bëri loo xam nag ñaawul nañ ko ci làmb ji mais ma leen ñëwee ci am nañ ci waxtaan mais yàlla ànd ak ñun. waaw kontaan rek. ndam a te lii yëpp Tidiane Faye la Tidiane Faye ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm lépp Tidiane Faye la. Thierre barki alxuraanu karim lamb ji nii laa ko géntee. Ah. su dee am na lu ma si nëpp yal naa dee dem safara barki alxuraanu karim lii day mel ni dañ ma ko wanoon wanaan ma ko. billahi wallahi wa taala. waaw c' dafa mën a bëri dafa mën a bëri. tuba laa der ci la farfoosu. imanende oy alaykati kam mangala yaran ya